tey dama lay wax nan ngay sécuriser sa compte PS2 24 parce que PS2 24 arnaque yi da see bëri lool gars yi ay compte rek mais tey moom dinaa la wan loolu lépp nan nga ci musloo ah, nan ngay valider sa compte ba nga xam ne si ne même kenn boo xamee sa email ak sa mot de passe bu ko tapé sax du ci mën a connecté du am du mën am accès directement pour connecter ci loolu laa lay wan tey mais laataa loolee bu leen fàtte abonné surtout ngeen like vidéo bi aussi ngeen commentaire aussi pour ku abonné gul bu fàtte nga cliquer ci abonné nga activer cloche de notification aussi voilà c'est parti. voilà premièrement li ngay def da ngay dem sa Google Chrome da ngay dem sa Google Chrome léegi. dem Google Chrome voilà léegi après boo demee Google Chrome da ngay dem ci barre de recherche bi nga tapé foofu My Konami voilà mooy surtout pes bi nga tapé foofu My Konami voilà nga tapé foofu My Konami après nga recherche voilà bu fekkee ginnaaw bi nga xamante ne eh, nga compte pes bu pare yor am nga sa compte pes bu pare après da ngay ñëw nga cliquer fi ñu bind law gën voilà mooy mooy inscrit léegi ñun dañu ñëw ñu traduire page bi en français pour mën a comprendre li ñuy def da ngay ñëw nga cliquer fii ñu bind français pour mën a traduire page bi en français voilà bu fekkee gisoo ko moom da ngay topp kii ñuy def rek léegi après boo tra gis ngeen est bi ni traduire nañ page bi en français connectez-vous à My Economy ici voilà léegi dañuy cliquer fi ñu bind so connecter pour dugal suñ compte ak suñ mot de passe bala ñoo commencé valider voilà léegi une fois ñu ñu cliquer passe bi la ñu indil directement léegi passe bi daf ñoo wax ñu dugal suñu adresse email yow boo ñëwee fii man fii dama cay enregistré sama adresse email ba pare mais yow boo ñëwee fii sa adresse email bi ngay ubbee compte pes bi ngay bind fii fii nga def sa mot de passe léegi fii boo defee sa mot passe léegi nit ki nii ngay choisir fii nii nit kii nii ñu la defar fi ni ngay choisir fii da ngay choisir instant bi gis nga nit kii ñu defar moo nekk nii nekkaat nii nekkaat nii da ngay cliquer pour captcha bi après boo cliquer nga ñëw nga bës fii ñu bind seen eñ voilà en en anglais la voilà foofu noonu ngay bind voilà foofu noonu ngay cliquer léegi ñu def suñu mot de passe ñu def suñu mot de voilà après ñu cliquer ñett ñi ci kaw voilà da ngay cliquer ñett ñi ci kaw parce que mooy ressembler mais même ki ba après nga bës si in voilà léegi après boo ci cliquer directement dafay connecter sa compte sa compte Konami léegi voilà gis ngeen mi ngi nii compte Konami euh, connecté na si sama compte Konami directement léegi ñun lii lépp amul lu ñu importance lii lépp amul lu ñu importance léegi fi ñu amal importance mooy sécurité partie bi sécurité moo ñu amal importance léegi fi la ñuy cliquer léegi après buñ ci cliquer dañuy ñëw ñu bind ñu bës fii ñu bind activer voilà fii ñu bind activer la ñuy cliquer pour mën a activer validation bi après une ñu cliquer fi ñu activé dañuy bës fii ñu bind envoyé pour ñu valider suñ compte pour mu envoyé ñu benn code SMS si adresse email bi léegi dañuy cliquer fi ñu bind envoyé léegi dañuy cliquer fi ñu bind wala voilà eh, après dañuy patienté wu voilà voilà actuellement nii nag envoyé nañu benn envoyé nañu email avant euh, nañu benn email léegi dañuy génn dañuy bës bouton dañuy ñëw ci digg bi dañuy bës bouton rek pour mën a génn léegi après bu ñu génnee dañuy dem si application Gmail voilà mi ngi nii application Gmail baa ngi nii léegi la ñuy cliquer directement pour mën a jël suñu message voilà léegi ñu censé compte Google parce que compte Google bi nekkul bi moo war a envoyé voilà voilà email bi ma envoyé mi ngi nii Konami info voilà vérification code léegi ñu cliquer après buñ cliquer ñu xool code bi ñu envoyé sànq wala code baa ngi ni douze euh, cent vingt deux mille huit cent soixante et cent vingt deux mille huit cent soixante et un code bi moo nekk nii cent vingt deux mille huit cent soixante dañuy dem ñu bind ko cent vingt deux mille huit cent soixante et un euh, deux mille huit cent soixante et un après dañu kose fii après dañu kose kas bi après ñu bës next après buñ bësee next dañuy patienté wu voilà une fois ñu wu pass bi la fi ñu indil pass bi voilà gis ngeen mu defal ñu verte mooy wane ne suñ validé nañ suñ adresse email euh, voilà lii c'est très important nga def ko parce que day day yokk sa sécurité euh, sa compte PES 2024 da si yokk sécurité pour pour nga éviter arna yi voilà gars yi vidéo bi nag fii lay yam xëy na dinañ ñëwaat ci yeneen façon pour ñu éviter arnaque yi pour gën a sécuriser suñ compte voilà vidéo fii lay yam bu fekkee bëgg ngeen may def vidéo ci PES 2024 wax leen ko ci commentaire yi voilà on vous donne rendez-vous la prochaine